ànd ak jamm yeen ñëpp di jël nuyo bi diko tégal tamit ci président euh, bar mu jallu ko bëpp membre bu nekk ci groupe bi wa di amaat contact ma tamit sen télé ben TV kontaan nañ trop ci yeen sen liggéey bi tamit rafet na wa yeen ngi koy doxé nu mu wara yalla na yalla mo tali dem ba def ko ay télé télé. waaw waaw di woowaat ñëpp rek di leen gëna ñaaxaat xamante suñu biir ñu jappando xaccando dorondo waaw jërëjëf moom mooy Adama Fall moo nekk porte parole xidmatul xadim baara ñu def tàggoo bu dul tàkkalikoo bi ñu ngi lay ah, ñaanal jàmm ak salam di ñaan ñaanal si disponibilité bi ndax ñu wax la ko nga yombalal ñu ko yaakaar naa ne nag nga si li nga doon waaye nag nga si biir bi ñu lay jaajëfal waa BNTV tv di la jaajëfal ñu def tàggoo bu dul ak ñan ngay woo si safar bi ñëpp nag tuwarkal avant mhm. tout rek di leen remercier leen wax ne kontaan nañ ci ndax gis nañ yéen a ngi jàpp te bàyyiwu leen naa di ñaanal waa Ben TV Sénégal rek sa kaw ca kanam lépp loo leen yootu rek yàlla fekk si leen ngeen am ci ak ndam te day gën a neex waaw yoon wi moom ku ci nekk moom yaakaar naa da ciy yëg sa bopp waaye du maanaam ak deltu ginnaaw moo la ciy fekk xanaa rek di waajal safar gi lépp luñ ci sumb rek yàlla dimbali ñu ñu waa invitation yooyu nekk noonu. akan nanya naa nag waa BNTV Sénégal ñoom dinañ ñëw def seen participation soalnya sa waaw non yéen soo ma dañu dañ leen di jox benn sax Wow, iya iya la. iya na amul Wow, uh-huh. di am contentement rek maam ne jamono ji yaakaar naa ne dugg safar gi ndax buñ safar moom yaakaar naa Raka rakkaaju jot na. rakkaaju kay ah boo fede, fi de ñun de rakkaaju nañ. fi mu toll nii lu ma ko laaj rek mu jox ko taaliba lu rek sëñ bi moo ko moom waaw te am kontaan na fii ak le 17 mhm. ñoo ngi ci lépp li ñu xam naa buñ ci jógee mhm. ñu ngi ci laxasaay ñu ngi ci màjjaal gi ñu ngi ci préparation yi di leen sant bu baax a baax jërëjëf mbokk BM TV Sénégal téléspectateur internaute ñëpp ñu ngi leen doon ziar di am mbégte ak contentement saa yu ñu taalee suñu chaîne indi leen agré utile ak agréable ngeen daal di say bég tey nag maa ngi woon fii si marché Zinc comme ni ma leen ko waxee seesi woon jëwriñ Bara Dioum mu nekk jëwriñ xidmatul xadim mu yombalal ñu nag yëf yi jamono ji xam nañ ku nekk ni safar dafa jub si bépp murit amatul jot amatul temps moom si li am si temps ko bokk seek ay mbokku daayiraam ak ñi nga xam ne dafa leen a jiite ñu joxante dig daje ba beneen incha allah beneen jëwriñ si beneen prochaine émission incha allah rabbi ñu def tàkkoo bu dul tàkkalikoo nee naa leen fii rek la mburu mi di tàngee waaye dëgg-dëgg fii rek lay xoyom xoyomee 18 safar la lañ jëm màggalul cheikhul xadim bi nee naa leen mooy maami Basak Baara maami Cheikh ak dan góor gi demoon maa yombe jaar ni mbër wëri nee naa leen moom mooy góor gi lal sijaada si géej gi julli fa jëbi takku suuf gars yi naan ay tricage la ma leen ku sa maam mën na daal di def ba mu ko defee ba léegi kenn deful saa yu sonné nag ma ne leen mooy numéro 4 numéro 4 bi nag nee naa leen du puukare du lenn jundu la waaye ku ko mën tubarkàlla na nga ko làkkat yi adama incha allah